alors May Babacar comme ni ñu ko waxee woon sànq rek da ngay euh, jéem a rek euh, dem ci euh, tolluwaayu jamono ji ñu waajal jëm ci màggal gi mais ngay waxtaanee pas-pas ak mag ñi mag ñi ak pas-pas. jërëjëf mhm. ñaa ngi noonu nga xamante ni ñoom lañu yàlla séddee le Serigne Cheikh waxoon. Mhm. ne Makka noonu gën ay magi démb. Mhm. waaye ñun ñoo leen gën ay magi tey. mel ni loolu la yàlla cëralee. Mhm. boo xoolee àddina bi bépp tey soo ko xoolee mag ñi nu ci am dina néew lool nga fekk ko ci beneen dëkk boo xam ne yàlla war sa gënal leen mag ñu mel ni ñu nu yàlla war sa gëlee mag ñi nekkoon ñoo xam ne ñu amoon pas-pas lañu ñu amoon ngëm lañu seen pas-pas boobu nga xamante ni dafa wéeroon waaye seen pas-pas boobu nga xamante ni dafa dëgëroon tax diine nekk loo xamante ni lu dëgër la ci réew mi ba tey ak sax ci yeneen i réew ginnaaw bi nga xamante ni empire yi euh, tas nan xam ne empire bu mag boobu ñu naan empire du Ghana ñu naan ko sunu Ghana nga gis ne ñu bari sax ñu ngi wax ci historien yi ne sunu gana jooju moo jur sunu gaal ba sunu gaal googu jur senegal gis turu senegal bi ñu ne mi ngi gongi ko foofu ci sunu gana ci empire bu mag boobu boobule nga gis euh, ni yàlla bindee réew mi nga xam ne li ko dalee ci penku ba jàpp saw dex gu mag googu di ñu naan ko le Nil muy le fleuve Sénégal tey jii bi empire yooyu dajee mag ñu bari ci mag ñi dañoo topp dex googule ndem jege na ndox ñu topp ko dëkke ko loolu mooy wal di rogalaat ñuy wàcc si ba dugg si ci biir réew mi nga xam ne moom moo di réewum senegal bu njëkk bokk na ci pays bi nga xamante ni mag ñu bari euh, fa la ñuy jóge rawatina ci wàllu diine 1512 ci la soppeeku nekk Fuuta Tooro tey jii xoolee sunu maam du mel ni Lamtoor Ablan Sall nga xam ne moo jur na ba Sall ak Faatumata sàll mi jur Njaajaan Njaay ak yeneen maam yu bari soo seetee seen taarix ñu ngi jóge ci pays bu mag boobule di Fuuta Tooro euh, sunu maam yu bari jóge foofu ñi li wala ñi jóge foofu meññ leen ba tey ji réew mi euh, boo xoolee ci wàllu ak bokk ni nu bokkee ak ni bokk gi tëddee dangay gis ne macha allah rabbi la waykat ba waxoon rek ne mën nañu xuloo mën nañu xeex waaye mën nañu xasante li ko waral rek di mbokk gu rafet goo xamante ni mbokk nañ ko réew mi biñ fa tolloo euh, macha allah rabbi diine nekk loo xamante ni du fi yàgg. saaw ndax mag ñooñu le euh, yàlla dafa dogal jëggkati arab wala jëggkati naar yi nga xamante ni daananu daananu topp dex googu lay xamante ni daanan indi ay marchandise di jaay ñoom nga xamante ni diine yàgg na ci ñoom bi ñëwee bokk nañ ci ñi nga xam ne euh, wesaare nañ ñoom it diine ci biir mag ñooñu le ba nga xamante ni diine tàmbali fi am cër ci la daara yi tàmbalee taxaw samp ay daara euh, ku mel ni suñu maam jooju di Serigne piir Xaali Amar Fall ci 1603 mu sanc daara ju mag jooju ci piir suñu maam Matar Ndumbe euh, suñu maam yu baax yooyu yëpp kenn ku ci nekk ci pays bi nga nekkoon rek euh, samp fa daara njàngalem alxuraan. ak tarbiya ci wàllu diine ak euh, mbaax tàmbalee law ci réew mi tàmbalee saaw mag ñi gawee ko nag seen pas-pas bu dëgër euh, foofu dem rek fekk mag ma fa nekkoon jiital pas-pasam jël yàlla suñu borom teg ci kanamam di jàngale di bay di dunde di defar nit ñi di leen euh, tënk ci ak taalibe di leen tàggat ngir ñu nekk ay nit ñoo xam ne ay nit ñu nite la ñu doon ci wàllu gune loolu tubaab di tuddee un citoyen à part entière parce que seen yitte rek moo di woon fexe ba euh, nit ñi nekk ay nit ñu nite ci réew mi ba ci réew yi nga xamante ni ñoo digaloo ak ñun lu mel ni réew Mali lu mel ni réew Guinée yooyu yëpp nekk ay réew yoo xamante ni euh, diine ji ak lislam bi ak pas-pas bi euh, teel fa saaw ba gis nga foofu nga xamante ni moom moo di réewum Gana moomu nga xamante seen pays bu mag boobu di Koumbi Salex nga xam ne jamono jooju lu toll ci fukki jàkk ak ñaar wala ay jàkka ki juma euh, amoon na fa ci jamono yu yàgg yooyu yooyu nekk loo xamante ni moom moo dëgëral pas-pas yi di wàcc si nag jëm si ci euh, sunu mag ñu baax ñi euh, ba ci seeni sët ak seeni sëtaat nga gis bi daara yooyu tàmbalee saaw tàmbalee dëgër tombeek nag tubaab bi ci wàllu coloni tàmbali moom dugg ci réew mi gis ne mag ñi seen taxawaay bu rafet bi ak ni nga xamante ni noonu la ñuy niteele nit ñi ak di leen euh, joo jëme ci suñu borom euh, bokk na ci li nga xamante ni xëy na du méngoo ak seen bëgg-bëgg li nga xamante ni bëgguñu rek nit ñi nekk ay nit ñoo xam ne euh, du ñu mën a jariñoo seenum xel ba ñoom ñu bëgg di leen jariñoo di leen jàpp di jaay ak di leen wëlbati jëme ci fi nga xamante ni moom lañ bëgg du leen euh, ba du baax ci ñoom mag ñooñu ni nga xam ne noonu lañuy def nit ñi ñu tàmbali nag euh, di dox seen diggante ak mbaax googu nga xam ne ñu ngi ko bëgg a tëral ci réew mi ci leen tàmbalee euh, ñenn ci mag ñi ñu di leen indil ay jafe-jafe di leen jàpp ñenn ci mag ñi ñu dox seen diggante njàngale mi njàngaleem daara mu barkeel moom nga xamante ni daan nañ ko def ba gis nga sax ci jamono. 1870 euh, commandant boobu nga xamante ni moom la ñuy wax Xavier Walière ñëwoon foofu ci piir taal daara ju mag jooju fa nekkoon di daaray Serigne Pire Xaali Amar Fall jooju gis mag ñi bi ñu yëgee ne daara ji nar nañ ko taal ci seen pas-pas bu dëgër danoo gasoon am leeñ daal di cay nëbb téere yi suul fa téere yooyu yëpp euh, boo xoolee ci waru taarix nañ la wax ne téere yooyu am nañu téeméeri at foofa waaye ba ñu demee sulliwaat ko dañoo fekk téere yi dara sikku ci nga gis pas-pas bu dëgër ak pas-pas bu wér ni nga xamante ni noonu la ci suñu borom di àndee ak noonu la ciy jàppee mag ñi nekk ci pas-pas boobu di ko doxal ñoom it euh, li tubaab bi bëgg ñoom it li nu bëgg ñu bëgg ko doxal rek su tubaab bi dee bëgg a dox seen diggante ak yàlla bëgg dox seen diggante ak pas-pas seeni pas-pas yu dëgër ñoom it ñu taxaw temm ci bëgg a dox diggante tubaab yi it ak loolu nga xamante ni moom moo di bëgg a wëlbati seeni pas-pas euh, jàmmaar loogu moo xam ci la moo xam ci batin la li ci ëpp sax di baatin nga xam ne mag ñi yàlla nanguloon na leen ndax seen pas-pas bu dëgër ci la ñu taxawee temm ba gis nga Euh, loolu leen yàlla faye tey jii mooy diine ak paspas ak mbaax saaw ci réew mi ba ci àddina bi yëpp ba tax na tey gis nga sunu maam ju baax ji nga xamante ni moom la ñuy dëgmal bésam bii di maam Cheikhul Khadim gis nga fi mu jaar ak tubaab bi ci rafetal waaye ci njàmbaram waaye ci jomam waaye ci pas-pasam bu dëgër ba la tubaab bi bëggoon lépp mu naax saayal ko tey taxawal yoonam wu barkeel wi yoonu murit nga gis saa yu bis bi euh, jubsee taalibe yëpp taxaw ci loolu yëpp li ko waral rek mooy liggéeyam bu rafet boobu nga xamante ni mu ngi tënku woon ci pas-pas bu dëgër xam ne yàlla suñ borom euh, moom rek mooy ki nga xamante ni moo jar a nekkal yàlla sunu borom akub yónentam mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo jar a taxawal ñoo jar liggéeyal soo demee sax ci xasidam bu tedd boobu ma nga ko ciy wax naan xidmatahu anil uyubi azhabat wa listixaamatan wa safwan wa hëbat mu ne liggéeyal sayduna muhammad mu ne azhabat day demal anil uyubi ci ay ayib te wa hëbat may na lii man ñeel ma cheikh ahmadou bamba listixaamatan ak njub wa safwan akuk sell nga gis ne pas-pas bu dëgër boobu mu nekkee woon liggéeyal Seyduna Muhammad ba tax turam wu rëy wowu di mu rasul mu am ko ci ak sunu boroom mi nga xamante ni moo jara nekkal yooyu ñooy li nga xam ne moo leen may tey mag ñi seen mbaax dootul fay ba keroog àddina di jeex waaye mag ñu bëri nga xamante jaar nañ ci moom mu tarbiya leen Euh, jàngal leen euh, yar leen def ci ñoom mbaax waaye def ci ñoom leer mag ñu bëri ñooñu nga xam ne tey seeni sët ñu ci réew mi ku mel ni sëriñ Abdou Karim ture waaye ku mel ni sëriñ Mbay Sarr waaye sëriñ Mbay Moor Jàngam Jóob ak mag ñu bari ñoo xamante ne ni euh, Cheikhul Xadim ci seen ci keppaaram lañu nekkoon tey ñooñu Euh, yaatal yoon wi taxawal liggéey bi ba léegi lépp di rafet ñooñu ko ci xool rek pas-pasam tey jii moom moo wér moom moo dëgër dëgër goo xamante ni sa ginnaaw ba léegi lépp mu ngi rafet di baax boo xoolee ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall pas-pasam bu dëgër ak pas-pasam bu landi tey tax na euh, dëgër laayam ak dayoom ci yoonu cheikhul xadim woowule rëy rëyaay goo xamante ni kenn mënu koo natt mag ñi daal ñu ngi noonu ak seen pas-pas bu dëgër bi nga xamante ni pas-pas boobu ak ngëm googu daan nga gis sax koo xamante ni pas-pasam daan na tax bu masaana euh, am àll pas-pas booboo koy gunge ba nga xamante ni daan nañ fekk sax cin lu tàng nu sotti koo ko te duñ lakk seen pas-pas daan na tax. Euh, daana daana jéggi ci taal sax te du lakk waaw yooyu pas-pas bu dëgër moo koy waral am na ci mag moo xamante ni euh, mbubbam mës naa wadd ci ab taal taalibe bi daw di ko jël mu ne ko jaru ko yàlla mos ruus naa lakk sama mbubb euh, kon yooyu pas-pas moom moo koy waral bokk na ci li nga xam ne wute na nu ak mag ñooñu nag mooy pas-pas bu dëgër boobu am na ku ma mos laaj ne ma waa ñun lan moo nu wutale ak mag ñooñu loolu nu amoon te ñun ñëw fexe ba am ko ci wàllu wow ma ne pas-pas rek moom moo ko waral ndax pas-pas dafa dafa am solo pas-pas mooy waral jaayante te jaayante su amee sunu borom daal di gunge ko defee sunu borom mooy taxaw ci yu bari ci seen i diggante ak seen nekkin ba lu bëree bëree bëri macha allah rabbi boo ci dogoo sax moom daan nga gis koo xam ne day xool kenn ci mag ñi rek teg ko ci kanamam su dogoo ci mag moomu rek. Euh, yàlla fekk si ko ci yooyu yëpp nag pas-pas moo koy waral am na mag mu baax bu ma mës a nettali dafa mës dem ci àll bi ay ay ay ay ay nagam réer mu sàmm bu guddi mu mu nelaw nelaw fëkk ko fekk mook ay doomi baayam ñoo àndoon euh, macha allahu rabbi doomi bàyyi na ko euh, nelawal nu xool nag yi bu ndee ba guddi gi xaaj ñu yee la nga xool nag yi ñun ñu nelaw mu ne leen njëkk leen a nelaw rek ma xool Euh, bi mu njëkkee nelaw bi mag ñi toogee magam yi ak doomi bàyyam yi tëddee nelaw moom muy xool nelaw fëkk ko moom it mu nelaw nag yi topp leer gi rek ak mbooy gi ñax mi for daal di dem biñ demee ba guddi gi xaaj ñu yeewu gisuñu nag ñi waaye pour walla mag ñi seen pas-pas ni mu dëgëre woon ak fi mu toll bi mu demee ba jaaxle rek mu tudd kenn ci mag ñooñu euh, daal di topp àll bi muy dox ba ci yàgg rek am lu ko fëgg ne ko diw mu gëstu mu ne ko nag yi nii la ñu jaar euh, loolu defoon ci moom tiit moo xam ne ba ni mu génn jamono tiit moom mu daan na ko dikkal nga xam ne pas-pas lu wér la lu dëgër la loo xamante ni su ko nit ki amee bu dogoo ci mbir sax yàlla fekk si ko ci pas-pas baa ngi noonu ak mag ñi. wallaay wallaay mhm. am na solo am na solo parce que yaakaar naa pas-pas moom mooy base loo mën a gis. loo mën a gis rek nit da ngay ànd ak ngëm-ngëm ci loo mën a ne rek. borom bi fekk si la te eh, suñu mag yu baax yi amaana tey lépp lu ñu mën a am. loolu loolu moo leen moo leen ko jox parce que comme ni nga ko waxee léegi ñu ngi waajal jëm ci màggal gi mais eh, gis nañu eh, Serigne Touba Xaadimu Rasul tey jii Abdoulahi wa Xaadimu Rasul lañ koy wax. Mhm. gëm-gëm ak pas-pas bi mu amoon ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam moo waral ñu jël turam toftal ci euh, xaadimul rasul boobee mu nekk lu am solo lu nga xamante ne yaakaar naa privé nañ ko à 33 ans de de liberté ñett mm. euh, fanweeri at ak ñett ñu privé la de liberté xam nga lenn rek nga ci jublu woon mooy xëy liggéeyal euh, sa askan wala ñi nga xamante ni ñu ngi fi ñu ngi ñëw wala ñi ngi fi bàyyi loo xamante ni tey jii dinañu mën a gën a jublu mm-hmm. euh, soobu ci liggéeyu suñu borom bi donc mu nekk lu am solo lu nga xamante ni yaakaar naa comme ni nga ko waxee aussi maam Cheikh Ibrahima Fall namp pas-pasam euh, kenn naatam leetu ko parce que tey ko yóbbu bañ def ko baabul muridina yoonu murid xam nga tey mënoo ne murid laa mm-hmm. te nanguloo Baay Faal wala nga ne murid laa mais duma Baay Faal mm-hmm. xamante amoon na ko donc mu nekk lu am solo lu nga xamante ni c'est des exemples à suivre. walaay walaay walaay mu ngi noonu pas-pas euh, boo xoolee Cheikhul Khadim ni nga ko waxee léegi jaar-jaaram yëpp mhm. li tax rek mu ngoy ci rek ba yàlla defal ko ci ndam lu yaatu li mooy pas-pas bu dëgër. Mhm. pas-pas bu dëgër. Euh, boo demee ci sunu mag ñi koo ci jël rek mhm. moo xam ci ngar mi la moo xam ci cëriñ la koo ci dégg tey ñu koy tudd ba tey ji mhm. pas pasam bu dëgër moo tax mu am ko waaye jaar na foo xam ne mënoon naa bàyyi mhm. waaye pas-pas rek mhm. moo wóor comme comme le cas de Soxna bu Buso maam Jaara Buso rek suñu Soxna Jaara boobu ah pas-pasam tey jii ak gëm-gëmam bi mu amoon ci digganteem ak boroom këram doon sëy waaye euh, sëyul sëyru rek borom a mën nañ ne mais da cee jublu woon jaamu suñu borom mu nekk pas-pas bu wér bu wóor bu nga xam te wóor boo xamante ne daf ko amoon mhm. te tey ji eh, yaakaar naa jur na fi jant koo xamante ni ku nekk yaa ngi koy sukkal ku nekk yaa ngi koy raamal ñu yaakaar ko tey ak ëllëg te loolu pas-pas gu gu dëggu bu wér te wóor rek moo ko mën a may te pas-pas a taxoon sax mu mhm. sàkku ko mhm. ndax moom soxna jaara bi mu ñëwee def ne dinaa fi jur loo xam ne kat dina dinañ ko mën a topp te mhm. dinañ ko mën a donc pas-pas mooy mooy wane mbir mu ni mel mhm. parce que nit mën ngay dugg ci dara sax te doo xam ndax mhm. fii a la jëmee mais moom ba ma dugg si def ne su ma ñëwee ci kër Maam Anta Sali gi dinaa fi am loo xam ne ni incha allah daañu ko ziar te mhm. gis nga pas-pas moo ko may loolu ah, ndax ci pas-pas boobu la wéeru ba tey tax ji eh, tax tey ji ñu ñuy waajal 18 safar mhm. borom tukki bi sori bi ci eh, sërite bu <laughs> macha allah di bu baax <laughs> uh-huh. Uh-huh. yaxin ni yu jàpp bi gis nga loolu moom mooy maanaam nit ki li nga nekk mm, dogu ci faw nga gis loolu rek mooy résumé wax ci kase donte xara ñëw ci ak ñaan ak yi ruq yi yi kilifa yu mel ni may mbaay Babacar amal yaqin rek ne lii nii war naa mën a ne wekk lépp ci suñ borom incha allah day nekk mhm. mhm. ak seen pas-pas bu landi moo tax euh, mhm. moo tax réew mi euh, mos naa dégg ci Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum. radiyallahu anhu hmm. yàlla dafa defal réew mi. lu hmm. mu defalul benn réew. wallaahi. <laughs> est-ce que ay mag yu baax. barke alxuraan ay mag ñoo xamante ni seen pas-pas dafa dëgëroon. Hmm. moo tax nit tax li tax mën a sàcc biir. daf sàcc daf ci am pas <laughs> moo tax dara su ko mooy tax bu wallaay wallaay lépp looy ànd ak gëm-gëm da ciy jiital ak pas-pas. d'accord Mbaye Babacar am na solo pas euh, le mot clé ah. pour mm-hmm. ci lépp loo mën a dugg. que ça mm-hmm. côté spirituel wala temporaire. Mm-hmm. nekk na loo am solo bu baax a baax Mbaye Babacar ñu lay jaajëfal. di la jaajëfal baax soxna Salma Ibrahima maa baax doon bu baax Serigne Sidi Mbacke euh, sama xarit yooyu yëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax di nuyu sama xarit moo di Ndiol Fall di nuyu. sama yaay sama yaay bopp yaay jay na ba Fall yal na yàlla guddal fanam te yokk teraanga am barki yonent bi mhm. xarit yi ak soppi yëpp sëñ Modou Hakim Mbacke sëñ Mokhtar Hakim euh, nekk foofu ci Amérique ñu bisi na waajal si màggal bi dañuy leen bu baax sama xarit boobu di ñaan yàlla mi dara teewul yàlla def jàmm ci réew mi ak ci àddina bi yëpp ñuy ñaan nag chauffeur yi nga xamante ni ñu ngi dem ci màggal bi ah, surtout euh, ñu ñu bàyyi xel ci le code de la route bi nga xamante ne moom la Serigne Fallou. Mhm. Mhm. ku koy dawalee da nga màgg. waaw ñu ak jàmm dikk ak jàmm incha allah. may Babacar di la jaajëfal bu baax a baax donc tout de suite ñu dem ci rubrique dox dox bi ak Pati Fatou Mbengue ngay joxe rendez-vous Touba kon 18 safar bi incha allah dina neex <laughs> waaw daa nar a am gan suñu taalibe cheikh bi dafa mën bés suma suma suma suma suma la ca war hmm. incha allah dinaa dem da ngay seet loolu en direct nga ko wax suma dajalee la ca <laughs>